Zik FM juróom-ñetti waxtu ca Babel salaamaaleykum dëkk bu bëri wul bi Birahim ñaar fukki xale wala xale bu am ñaar fukki at ak ñett boo xam ni Aline Diouf la tudd ma nga dëkk ci abattoir ci côté ndax gu ndaw euh, daanaka dañ ko yóbbu ci hôpital ba ci urgence euh, sabab bi mooy gaañu gaañ yi mu am ci jàppante yi ñu amoon ak way takk der yi jàppante yooyee fu ne ma nga fa des def tour ci Sénégal ngir dellu soit ci ak yéen laataa ñuy ñëw itam ci yeneen ci xibaar mel ni kii nangu ki yoon nangu démb jox liberté provisoire Seydina Fall euh, Bougazelli loolu itam Safiotou Ba Ndiaye moo ci dellu seeg ñun. sport dinañ ci ànd ak euh, Baye Ma Anta Mboup yéen a kaay la ñuy xibaar yi ak El euh, Hadj Ahmed Aïdara. voici trafic news. waa trafic asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa élagement euh, ah ba naka situation tali bi voilà Mansour tey nag xam na lool yéen ñi bàyyi ko rek su bëgg a Ndakaaru tey nag diggante fi nga xam mooy romb romb mooy Sicap Mbao ba bëgg ak jàmm gën foofu xat na lool vous allez perdre beaucoup de temps sur ce trajet à l'origine camion en panne juste à de la station Shell de Diamaguène benn camion panne ci axe boobu tax na ma dem dégg dégg bi lop mañ lool oto yi takku nañ derrière mais soo weesoo rek le reste du trajet une progression tranquille lañ seetlu le cinq ci en kanam danaa la lambaat. Zik FM. asalaamaaleykum. ñu xibaar yi ndaw li am ñaar fukki at ak ñett Alioune euh, Diouf la tudd mu ngi dëkk ci abattoir ci wetu euh, ndar gu ndaw euh, fële ca nga xamante ni dañ ko at mi jamono ji tembe ci urgence hôpitalu Kaolack bu ñu sukkas ni ko ci waa l'hôpital ak police nee nañu sonn nañ sonn na lool mu ngi jëlee gaañu gaañu ci manifestation yi ndaw yi doon def ni ki démb ci ay gox yu wuute ci euh, Sénégal manifestation yooyu nga xam ni euh, daanaka li ko sabab mooy nee nañu dañu sonn ci état d'urgence bi ak couvre-feu bi dañ leen ko teggal ñu mën a liggéey dund itam seen dund euh, loolee nag sabab ne jafe-jafe yu bëri yoo xam ni am na ci ay gox yu wuute misaalu Casamance ñu fekki fa Abdourahmane jàlloo ci jamono ji nga xamante ne jàngoro ji di coronavirus di gën di law ci sunu mim réew ay vague de constatation di wéy di am ci biir réew mi Ziguinchor rëccul benn yoon ci biir les phénomènes guddi bi ñu jënn ay ndaw yu bëri ñoo jënn ci biir commune bu Ziguinchor wàcc ci mbedd yi ngir benn revendication bi maanaam na nguur gi levé li nga xamante ne moo di couvre-feu bu ñu taxawal ngir mën a xee jàngoro ji di coronavirus ay pneu yu ñu taal ay mbedd yu ñu baaxi ay xale yu ndaw ànduñu ak benn mesure barrière lii moo doonoon décor bi guddi bi ñu jënn ci ay quartier yu mel ni Lindiane Boucotte Grand Dakar ca Ziguinchor jaaxle bi mooy événement yi li ñu ngi am ci jamono ji nga xamante ne région bu Ziguinchor di enregistré ay cas yu gën a bëri ci coronavirus toll na ci ay fanweer ci ay nit yi nga xamante ne amee nañu doomu jàngoro ji te ñu leen di faj jamono ji ca centre de prise en charge bu nit yu amee jàngoro ji te nekk ca l'hôpital régional bu Ziguinchor centre boobee sax bu ñu moyut dina am jafe-jafe ngir mën a jël en charge maladie yëpp su fekkente ne région bi enregistré na ci fan yi ñu dëgmal ay cas yu yees yu coronavirus Abdourahmane Diallo doon jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. Abdourahmane Diallo noonu ak Mbacké fa manifestation yi jëkke woon ngir kat ni dañoo sonn ci couvre-feu bi état d'urgence bi euh, police nag yokkaat effectif am ak itam lépp lu jumtukaay la bëgg mooy nit ñi respecté li nga xam ne mooy couvre-feu bi ak état d'urgence ñu fekk ca Bawol Abdoulaye Diagne. fanweeri nit ak juróom-ñeent la police teg loxo bokk na ci kenn koo xam ne moom lañ jàpp ne moom moo sooke lu ni mel ay manifestations contesté ak jàppante yu amoon ci diggante police ak ay xale yu jóg ne dañoo bëgg ñu jeexal couvre-feu bile police jatu ne soccet taxawal ay jumtuwaay yu am solo euh, ci dëkk bu tedd bi di Touba ay woto blindé yu ay soldaar nekk ñu samp ko buntu Touba ak Mbacké ngir mën a jàmmarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy def katu ñaawte file dem ba saax saaxe dëkk yi di Touba ak Mbacké noonu sax xalif général de di am ci lu ko mitti lool yëkkati ay kàddoom di woote ak dal ne lu ni mel musta am Touba dëkk bu tedd bilee Abdoulaye Diagne Touba Zik FM fi situation réew mi toll ndaw ñi def ay manifestation njiit réew mi moom la yëg am na euh, mel na njiit réew mi dégg na ko ndax ci conseil des ministres wax na ministre bi ñu dégg wàllu transport terrestre ak aérien àndandoo ak ministre bi ñu dénk wàllu intérieur ñu liggéey ba dindi loolu nga xam ne moom la koy wàññee lu mel nag bokk ci mesure nga xam ne jëloon nañu ko ngir yoolamal yenn mesures yi ñu jotoon a jël ci covid 19 ca loolu it njiitu réew jagleel ñetti milliards ñi nga xam ne mi bokk na ci li nga xam ne mu leen xam ne ñoom ñooy jënd ak jaay li nga xam ne moom lañ jëppee production horticole waaye li nga xam ne mooy jëndi jumtuwaay ngir rek mbayum ceeb mi njiitu réew mi it bokk na ci jàppale ne moom mooy ñeel subvention téeméer boo jël bokk na ci juróom-ñaar téeméeri unité de matériel agricole yoo xam ne dañ leen koy jagleel jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñooy ay ndaw te am ay projet Macky Sall yamul foofu ndax lépp loo xam ne bokk na ci ni ñu yore lii di Covid 19 ñeel wàlluk wér-gu-yaram nee na faaw ñu gën a yokk li nga xam ne mooy riposte bi lool nag tax na mu wax jëriñ jëriñ dénk wàlluk santé action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr mu fexe ba seet na muy xayma ab évaluation bu am solo ci li nga xam ne rek mooy yore ni fayal bi bu mu duggee ci réew Sénégal ak léegi. Fatou Abdou du ministre de l'intérieur naatangoo bi ko defee woon ca ba wopp a am def conférence de presse bu daañu bokkaat benn tey 11h ngir matuwaay bi ñuy jël ci fal tuuti ci dem beeg dikk bi ak couvre-feu bi ci euh, Sénégal. Ndeye Ramatoulaye Gueye nekkoon ministre bi yor lu jëm ci wàllu protection de l'enfant daal di ne mu ngi nekk léegi PCA bu agence euh, des euh, aéroports du Sénégal remplacé fa Ibra Ndiaye moom dañu ko nommé ci 2AS moom mi nekkoon wala ancien ministre Abdou Fall nommé nañu ko mu nekk président conseil d'administration bu APIX. décision bi ñu ngi ko jël ci conseil des ministres président Macky Sall ak ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye euh, xam nañu bu baax li nga xamante ni bi euh, moo mën a jeexeetaloo ci bu ñu maintenir couvre-feu bi ci lu toll ci ay weer ba ëgsi ci mois de juin bi ndax euh, gis nañu ni xëy na ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne mun naa am en tout cas question la bu ñu posé ci kanamu ki nga xam moo di Seydi Gassama euh, mi posté ci tuitam ngir joxe la mu xalaat ci fi Sénégal toll ci manifestation yi ci Pikine itam amoon na ay manifestation Abdoul Aziz bokk nekk membre ci CNTR-S euh, dellu soit ci sababuk yooyu lay manifestation ndax jafe-jafe yi nga xam ni ñoom la liggéeykat yi jànkuwanteel Ibra Wade moom mooy président wu CNTR-S moom itam moo wax ci kàllaame wolof ñu teewlu ko yu nu sabalde ak apprenti kenn musul gis ñuy ñuy sànni xeer wala ñuy taal ay pneu euh, su loolu amee nag euh, dañuy tàllal président loxo Euh, mu jël ci ay matuwaay euh, ñuy ca président itam ñu koy jëkk ñaan ñu dégaare oto yi mais ñu ngi koy ñaan aussi aussi mu xool de dédommagement yi nga xam ni moom la doon def ci secteur transport bi euh, tuuti na lool bi ñu ko xoolee mu jéem ko yokk ca itam ñu gaaw ci jox ko seen borom parce que manifestation yi xale yi dañu sonn loolu nag lañu bëgg mu jéem ko comprendre xam ni euh, secteur bi moo am doole boobu ñoo ngi ñaan gouvernement bi ñu taxaw ci xale yi ñu jàpp yépp ñu bàyyi leen ci xool na ñuy def ba delloowaat oto yi ñu départ noo koy ñaan di tàllal suñu loxo di tàllal président loxo ci taxawaayam mu boole ci muy euh, kàddu yu bàyyeekoo ci Ibra Ndiaye muy ñooñu nga xam ni euh, ay jafe-jafe la ñuy jànkuwanteel ñoom dawalkatu wata yooyu nekk ci transport parquet bi finalement mujj naa nangu demande de liberté provisoire bu euh, député Seydina Fall Bougazelli loole ngi sax ni ki démb ca saasa avocat am daal di yëkkati kaddu ci kanamu taskatu xibaar yi Safiatou Ba Ndiaye. Seydina Fall Bougazelli mujj na am liberté provisoire parquet bi mujj na ko ko nangul ginnaaw rek ay sàkkuteef yu bari yoo xamante ne def nañ ko ndax jàpp nañ rek wergu yaramam dafa sutante boobu la xibaar ki nga xamante ne rek moo di avocat am maître El Hadj Diouf dëggal na ko waaye nag fas yéenew ci sori ndax jàpp na ni dossier bi ba léegi mu ngi ci loxoy yoon ñu fàttali ne rek kii di ancien député di itam membre bu parti bi di APR di Seydina Fall Bougazelli dañu fekkoon ay faux billets yu bëri ci biir otoom mu di interpellation boo xamante ne bokk na moo waral ay renseignement yu chefu section de recherche jotoon jëm ci rek benn réseau trafiquant de faux billets boo xamante ne rek moom Bougazelli euh, daf ci bokk ci la ñu gaaw rek taxawal benn dispositif bu am solo tax rek ba ñu démantelé boobu le réseau Seydina Fall Bougazelli nag mujj nañ ko inculpé si ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum 2019 bokk na ci liñ ko téyewee woon ci maison d'arrêt a correction bu Rebeuss association de malfaiteurs waaye itam trafic de faux billets de banque Safiatou Ba Ndiaye maa ngi lay jaajëfal fukki simila ak benn moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Actu Souleymane asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. waaw bëgg nga wax ma ci xibaaru Ibrahima Niang ak FC Metz. waaw Ibrahima Niang nag jàppal ni moom moo ngi woon fii ci euh, Sénégal gannaaw nag euh, ba mbas mi euh, amee foofu ci France moom nag club am taxoon nag mu am ay raisons familiales mu ñëwoon réglé ci fi Sénégal moo ko fi indi woon nag di fàttali ni FC Metz moom fukk ak juróomeel place bi la mujjee nekk ci Ligue 1 bi gannaaw bañ koo dakkalee foofu ci France bu tax na sax ba équipe bi di FC Metz mën na nag maintenir ci jëm ci wàllum championnat. championnat bu France waaye nag moom dina nag dellu ci clubam ba teewe nag lu jëm ci reprise entraînement yi foofu seen club ni ki fukki fan ci weerum juin waaye nag international sénégalais bile moom nag bu ñëwee dañ koy isolé rek en attendant ñuy saytu lu jëm ci wàllum yaramam ngir xool fu ndax amul mbas mi wala déet ñu jàpp na nag foofu ca France surtout nag jëm ci wàllum Metz dinañ xam ndax seen ay entraînement dinañ ko tàmbaliwaat ni ki fukki fan ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum juin gi ñu nekk. Euh, euh, Baye wax na léegi ci xibaaru club turki bi tudd nu mu tudd Tra. Trabzonspor. Trabzonspor. waaw foofu nag doomu Sénégal bi boo ko boo ko mokkalee de wax dina neex waaye bala nga koy mokkal de Trabzonspor. <laughs> waaw Turquie nag fa la bàyyi Aliou Ndiaye football. waaw Pape Aliou Ndiaye nag milieu terrain bi nga xam ne nag fii ci jàmbaar lañ ko formé moom nag foofu lay football waxtu wi sax ñoom ñoo nekk ci euh, bopp championnat bu euh, Turquie waaye nag ñoom UEFA dañ leen nag euh, dàq ci bépp compétition boo xam ne ñoom dañ koy amal li ko waral mooy nag lu jëm ci wàllum obligation financière yi ba tax ne nag ñoom ñi le UEFA nag joxoon na leen sax ab date ngir nag ñu mën a régler li ni mel waaye nag boobule club mujj ko régler waaye ñu jàpp ne nag ñoom ñi kon bu ñu qualifié jëm ci euh, compétition européenne yi ni koy nag ci saison deux mille vingt jàpp deux mille vingt et un wala deux mille vingt et un deux mille vingt deux